asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax seex leen di am mbégte saa su ne defal jox leen ay xibaar dooreek si suñu gaynde bi nekkoon si U17 yi di Serigne Saliou Diouf Baye Fall bi rejoindre na fële si génération foot ñu koy souhaité bonne chance moo ngi jógee si centre formation bi ñuy wax bi sport donc euh, pour dem ay match yi moom li gën a gaaw boo demee génération foot mën nga ko am surtout que boo amee talent donc dañ koy souhaité bonne chance euh, kii di Youssouf Sabaly tey dafa décisif seen jàmmaarloo contre Villarreal dafa défense lii soxla si latéral défensivement ñëpp xam nañu da nga tàng donc euh, mu nekk benn très bonne prestation bu ñu Espagne batay mas Barcelone gis ngeen ak Getafe ay gaañante ay rouge moo fa am match bi Xavi nee na lii du vendre Liga espagnole donc 0-0 la à noter Real Madrid démb moo gagné euh, ki di Atlético Bilbao wa Real Madrid nak am nañu benn information bu neexul waaw côté Real Madrid dañoo am mauvaise nouvelle dit di euh, Miltao saison d'année, on peut dire que jeex na boo amee ligament croisé mooy gagne gaañu bi gën bon ci football 6 mois là, donc c'est hyper compliqué pour le Real Madrid avoir un dinañ mën euh, jënd beneen défenseur d'ici fin mercato bi leneen lu xamante ne mën ko wax mooy Kylian Mbappé dafa réintégré groupe bu Paris Saint-Germain équipe A bi donc ñuy wax né sax il se peut mu prolonger un an encore Mbappé ak Real Madrid Mbappé ak Paris Saint-Germain kon kon jëkër ak jabar quoi tay li suba li ginaaw suba li xamna suba Real ñu na mais Mbappé ya sauf suba paree Paris ça affaire fait leen soof pour vous dire que bon c'est tellement hyper compliqué buñ ñu Paris Saint-Germain ba dañuy wax si Neymar bi xamante presque d'accord na pour dem feulé ci Al Hilal équipe bu Kalidou Koulibaly donc euh, ñoy mom vrai dream team lañu am quoi donc euh, à noter que man bima xolé à peu près salaire yi que ça soit Benzema Kanté ñom ñaar ñooñu la ñu am Christian je ne parle même pas lu mu am Sadio Mané 40 40 45 moom ak kii Mahrez kii 80 damay gis ne euh, agent bu ñoom kii bu ñoom Kanté ku mën a liggéey la parce que Kanté il est pas bling bling du joueur stade buy jaay maillot de durée et c'est pas souvent footballeurs yi attaquants yi ëpp sa yenn quoi parce que ñoom dañuy dugal bi dañuy jël passe mais bon bref je veux dire par là que ni mu nekk deuxième ballon d'or au mondial mënoon na jël. mënoon na ab salaire bu ëpp bi donte li mu am nii dèjà bari na mais pour man pour que ñoom Kanté amee war na ko mën a am maintenant euh, voilà daal loolu en tout cas on voir Neymar foofu noonu donc da xool ne Paris coolu coolu yëpp Mbappé moo nar a toog Neymar mooy dem si dëkku naar yi pour dire que championnat Arabie Saoudite dina ak Canal Plus ren ji nar na neex quoi. mbokk yi euh, Moussa Ndiaye dougal na bi du côté de championnat Belgique suñu latéral gauche bi ancien joueur de Barcelone donc déjà euh, défensivement bo boo nekk boo ok nga bëgg def ay prestations assistiques ay ay buts loolu da lay gëna améliorer donc euh, fi nga tek sa tànk fofu la mon frère. beneen match bu xamantene ne la am Suisse ñu bëri doon ko laaj bu baax baax muy di Kalisen dougal na bi tay mom ak Alim Badara Balde ki ma defaloon interview ñu ñaan ñu toogoon mu xamal na mom Mohamed ren jii bul wax dara Coupe d'Afrique bi dama ciy dem te li ma ciy dem xamna naa ko mooy dugal ay buts donc le maximum dinaa ko def amical loolu la def premier journée mu dougal bi tey mënoo dugalaat bi il est décisif Alioune mbadra balde moom ak Kalisa ñoo bokk équipe donc c'est deux jeunes yu xamante bay leen xel gaay bay leen xel bu baax ki di Payet sama joueur de cœur hein man sama joueur la man man personnellement donc moom ak ñoom Sadio Mané ñooy samay joueur donc dem na feulé fële euh fële sa Brésil Vasco da Gama la dem ñukay koy ma koy souhaité bonne chance franchement nana dëgg c'est exemple joueur yooyu la ñoo quoi joueur numéro 10 Isco Ozil genre style Roquebar yooyu noonu dañoo raar léegi match Monaco dinaa ci wax parce que tay dañoo dóor 4-2 c'est bon maintenant suñu ñaari des jeux parce que dañoo mu jeex kenn ki 80 et lañ dugal muy Crépin kenen ki temps de euh, kii lañ ko euh fin temps parce que pour dem signer Fulham ak wala Nottingham Forest dem fekk Kouyaté du ak ñaxaté euh, ou bien parce que Monaco propre entraîneur bi lan tek ki sax mo tané Krépin Diatta aussi idem entraîneur Bruges boo bi ko yoroon Bruges moo ñëwoon mën a koo jox amoon na si moom confiance mais boo liiree yenn taskatu xibaar France dañ lay wax ne bokkul si plan yi entraîneur bi avoir yeneen journée yi ndax dina ko jox assez de temps de jeu mais ak lu ci mënti am boo gisee benn bunt wala fenn foo xamante ñu ngi laaj Krépin boo mënee dem demal quoi parce si sa digg doole nga nekk nekkoo si sa carrément sax mais da nga it

instant en général président bi commencé wax loolu rek ça, est ce que nekkuñu pour jaay ka donc on parle de Chelsea parce que Chelsea est moom Strasbourg pour renforcer Wall. gën a dooleel seen terrain ñu ngi wax euh, même si Caicedo foo notee que fa dem donc euh, Fabrizio Romano xamal na ko sànq nii rek comme information donc euh, Habib Diarra ici pour me reste mais wóorul Juventus mu ngi sur le dossier ak d'autres clubs donc loolu la ñu wax si booy donc je pense que j'ai fait le tour des informations yi xamante franchement bëggoon naa leen ko jox peut être bëggoon naa tëj ak Nicolas Jackson mais comme vous avez naa cette vidéo ba pare